ñu avancé justement ci euh, li nga xamante ne moom moo xew démb mooy ralliement Pape Diop ñu bari am ci surprise am ñoo xam ne aussi amuñ ci surprise parce que am na fu ñu fu ñu ko caricaturé woon ndax bokk nga ci ñi am surprise boobu. ah déedéet man bëgg démb am na si <laughs> yenn confrères yu ma leen waxoon ne du ma bett li ma doon bett kay mooy Thierno Alassane demoon ci Macky Sall loolu moom xamoon naa ne mënta ne li ma doon bett mooy Pape Djibril Fall demoon ci Macky Sall loolu moom xam naa ne mënta ne. waaye euh, Pape Diop mu fekki Macky Sall moom wax dëgg yàlla bettu ma. bettu naa diil également ci bopp Sénégalais yu bëri. Ah. non non non xam nga euh, Pape Diop d' abord for plus fort la ko Sénégalais yi jox jàpp naa ne électeurs ya ko wateel ñoom loolu du leen def problème maanaam ña ko wateelut nag bu ñu def problème bi problème parce que du seen problème. Mm. mais honorable affaire bi dafa mel ni da nga ko bëgg a jël à la légère te moom bi muy battre campagne côté opposition bi la battre xam nga ala ala xam nga li xam nga li gën a luur mooy. mooy euh, trucage bi waa Yewwi def ak waa Wallu escroquerie politique bi ñu def ba tudd ba tudd seen bopp intercoalition loolu moo gën a garaaw li Pape Diop def. defe naa wax nañ ci ba pare. mais mais mais mais kaw Sénégal yi dañoo bëgg indignation sélective. Pape Diop moom moom boppam. Mhm. ay parti am la yor am i responsable la am coalition la yor waa coalition bi jàpp nañ ne. ànd ak Macky Sall. Mhm. moo gën ñoom dem nañ mooy njëriñu réew mi. Mhm. nañ leen bàyyi sañ-sañ boobu. mi nga xam ne maanaam li ci li nga xam ne moom moo lay jàng ci globalement ci ñetti ñëpp ñetti député yooyu. Mhm. mooy Ousmane Sonko mi waxoon ne ñëw Thierno Alassane Macky Sall la ñuy liggéeyal jàpp naa ne tey histoire gàtt na ko war naa xam ne wóorul dëgg. est ce que est ce que au contraire amul dëgg si ñoom. ah est ce que au contraire Ousmane Sonko amul dëgg non non ki nga xamante ne moom mooy Pape Diop. parce que dafa wax sànni noonu mais. liste yi la mhm. mu ne bu dul moom wàllu ak yeewi dañuy liggéeyal Macky Sall du dëgg bu ñu doon liggéeyal Macky Sall bu fekkee ni Thierno Alassane doon liggéeyal Macky kon day day fekki Macky Sall xaar magal rek bu fekkoon ne euh, Pape Djibril Fall da doon liggéeyal Macky Sall kon euh, kon day kon mu dellu ko ginnaaw ñett la ñaar ñi moom weddi nañ ay waxam ay waxam du dëgg liggéeyaluñu kenn sax loolu ay sos la rek ay noo xam daf ay sos la yum def pour yàq derub jàmbur na leen ñaar yoon nag benn un mooy li wax wax na leen lu du dëgg deuxièmement tooñ na leen xëy na nag am na borom bopp yu woyof yoo xam ne loolu mën na leen yóbbaale mais encore une fois je crois que booy def politique te ne da ngaa bëgg a defar réew mi la nga war a moyu mooy di fen ak tooñ. honorable dafa mel ni plateau boo dem di nga attaqué Ousmane mais lan mooy. tudd mu ko yaa ngi fi tudd. Eh, non mais effectivement. non xam nga du ma la tontu jo xam nga coor coor coor soyons un peu sérieux wax xaaral ma il faut qu'on soit un peu sérieux moi j'ai mes opinions sur lui. su la naqaree bul ma invité. non non non du question du question constat la constat la honorable ah, constat la yow nangu nangu nañ la sax xam-xam. c'est-à-dire dafa ne man dama xam Thierno Alassane bu doon Macky Sall da koy jënd. dëgg la kon kon duñ tàggoo. Mhm. Thierno bañ na nommé directeur de la RTP 15 millions waroon a fay. mu mu wàññi. di xuloo Macky ci problème mu pétrole ba tax ñu tàggoo. gor mel noonu nga di ko naa ko Macky Sall ngay ci cadre Pape Diop que objectif bu débat bi nekkul woon Ousmane ko ciy glissé noonu ci li nga xam ne waxoon na ko yaa ngi wax ne man maa indi sax mais justement yow def clin d'œil jéem a digressé automatiquement dugg ci kaawu Ousmane Sonko mais bu ñu ñëwaatee ci ki nga xamante ne moom mooy Pape jo tey jii nii dugg na euh, mouvance présidentielle bi am na li nga xam ne moom mooy la majorité absolue bi nga xamante ne moom la soxla woon pour mun a gouverner tranquillement yi lan moo nar a doon taxawaayu Pape Diop ci assemblée boobu. bon loolu moom xaw mhm. yàlla na muy taxawee moom xaw parce que am na ñu koy simple justement pour mu diriger li nga xam ne xam na Pape xam naa ne am expérience assemblée nationale. maanaam tey jii Sénégal yëpp. Mhm. Pape Diop moo ci ëpp expérience ensuite mu nekk président assemblée nationale ensuite mu nekk président sénat loolu moom rek moo ko dajale ci Sénégal fi mu toll nii kon kooku am na expérience jàpp naa en tout cas bu ko def ko président de groupe mu def ko président assemblée parce que am na expérience bi non seulement am na expérience mais suñu ku dal la or assemblée bi ñu jëm assemblée bu nar a lay doon kooku dafa la kilifa bu dal bu ubbeeku. loo mhm. xam ne dina mën a gérer contradiction yi ba assemblée mën a def liggéeyam. à l'image de Moustapha Niass ci expérience. moom yooyu mhm. Moustapha Niass la quoi. Mhm. alors je crois qu'il peut être bon président de l'Assemblée dans ce contexte là. parce que non seulement am Benno. waaye xam xam ne Pape Diop am na ci relation particulière ak waa PDS je crois que même ñoom Khalifa Sall aussi am ak ñoom Habib Sy mm-hmm. amut ak ñoom ay xaar ma yàlla yu war a tax mm-hmm. ñu am jafe-jafe donc bu ma doon laaj ne man kan ngay def jox assemblée nationale danaa ko jox Pape Pape Diop pour le moment jàpp naa ne am na am na profil bi am na taxawaay bi pour mën a yor assemblée surtout ci contexte bi ñu toll quoi